équipe. bi CNG dégloo mbër tey mu nekkoon sa tour mën nañ xam lan nga fa jëlee. gërëm ñëpp sant ñëpp maa ngi ñëwoon ci réunion bi suite convocation bu CNG def concernant ci combat Sow Siteu ñun doomi réew mi lañ ci réew mi lañu dëkk euh, yàlla nattuñu ñuy organiser làmb pour bëgg Sénégal bëgg parce que suñu cosaan la comme ni ko président Khadim mii di waxe mhm. bi loolu amee yàlla indi ci ndogal ndogal li du Papa Sow du Siteu yàlla moo dikk te yàlla bu dikkee comme ni muy dikkee neneen jaam bi day dangu ndogal ci nangu ndogal boobu laa ni Papa Sow ak Siteu làmb jiñ ma yoreel bàyyi naa ko ci suuf pour que Sénégal am jàmm réew mi am jàmm ñu am jàmm komba bi yàgg na metti na te xëy na lii la ci yàlla dogal lii la ci yàlla nam man nangu ko nag waaw. Mhm. kon ah, mbir yi du leen jël seen reliquat dara toppatoo leen dara seen topp xam nga man bu ma xasee ba régulariser combat fii dégg naa sax benn mbër ne day dem sama kër jëli xaalisam mais yéen ñëpp xam ngeen ni loolu euphorie la. Mhm. euphorie la. Mhm. moo tax télé ak rajo booy wax na ànd ak sa sago. mais ku yàgg ku dem ba am benn temple bi nekk star bala nga wax da ngay xam li ngay wax promoteur mënul lu dul nas joxe avance ci biti avance bi sax normalement ci biir CNG lañ ko joxe bu lamb di jub si nga dem jox CNG reliquat bi nga régulariser kon xam nga ni promoteur bi bu desaloon 15 lamb bi dootu am mhm. kon xam nga ni ya xayti mu laa na man yorelu ma kenn xaalis mhm. tey réew mi fu ma neex lay daagu def naa maa ngi dugg léegi ma dugg ci suma préparé dugg vingt temps amul lu ma deful ci làmp ndax yéen ñii di journaliste mës ngeen di dégg mbër taxaw buntu kër Pape Abdou Fall ne sama reliquat ak sama xaalis lay wër wala Pape Abdou Fall am na sens interdit moo ma yoreel nangam ak nangam du am te du mës a am ci barke Cheikh na Cheikh Sall kon mbër yi man li ma warloo def naa ko boo xoolee réunion ba mu ngay continuer partie yëpp sont représentés wax ba ma jëlee kàddu xamal naa leen ni maa ngi gërëm suma doomu ndey Fallou Ndiaye Assane Ndiaye Yande Diop xaadim Ndiaye ak ah ñoom Cheikh Yadd ak ñoom Fallou Ndiaye Assane Bawol production parce que lépp ak staffu PAF production lépp ñoom ñoo ko yoroon ba ma jëlee kàddu xamal naa leen carrément li nga xam ni man kon combat laa signé woon coow li ci jib jib na ci Sénégal fi mu toll nii ak Gaston Mbengue suma frère maa ngi koy gërëm di ko sant sonn na ci ba biig xaaju guddi mu ngi may woo donc maa ngi koy gërëm di ko sant taxawaayam rafet na loolu la doy doyee mag euh, mag day defar gërëm it président Khadim bi ak Pape Thialis sama mbokki promoteur yi mais li nga xam ni man la ko mbër yi yoreel muy combat bis ni ki tey teg naa ko ci suuf pour l'intérêt général du Sénégal